salaam. waaleykum salaam Khalifa yéen kaay yi euh, créé li ci ëpp manifestation bi nga xam ne opposition bi euh, amal nañu ko euh, ci njeextalay bés bi. loolu la Khalifa Diakhaté manifestation boobu nga xam ne opposition bi amal na ko fii ci Sénégal taskatu xabaar yi daan nañ si ñëwaat nu mu gën a yaatoo ni ki tey ci ajuma bi bu nu sukkandikoo ci Vox Populi Oumar Sarr moom mu ngi tëkku bu baax a baax waa nguur gi li mu leen xamal rek moom mooy du nu deltu gannaaw benn yoon nu wéy di kaas lépp luy participation Khalifa Ababa Ababacar Sall ak Karim Wade moom ñu mën bokk ci wote présidentielle bu février wante itam Omar Sarr ngi wax ne ñoom duñu deltu gannaaw benn yoon bu ko jaree sax ñu jaar seen kaw ñu jaar seen kaw wante am na loo xam ne daal duñ ko nangu te di dinoonu défendre bu baax a baax nguur gi wante nag bu ñu dégloo la tribune bu ñu jàngee la tribune Xalifa tey ci suba moom li mu wax moom mooy euh, manifestation boobu la li si ëppoon ci lu ñu waxoon moom mooy fichier électoral bi ci juróom-ñaareelu xët PDS Wuré Sarr moom mi ngi wax ne fichier électoral bi nekkul fichier bu fiable mënuñu am euh, gëm-gëm ci fichier boobule wante itam mi ngi naqarlu taxawaayu ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ndax ci xalaatu Wuré Sarr mënta nekk ministre intérieur nekk itam ku bokk ci APR alliance pour la république tax ba les échos wax ne front résistance nationale mu ngi chargé bu baax a baax Macky Sall ak ñi mu àndal wante nag taskatu xabaar yi doon xaw a wute ci wàll woowule ñu ko wante l'observateur li mu gis rek moom mooy ab dajaloo bu ndaw ndaw la di dajaloo boo xam ne sax buñ koy amal ñi gën a am solo ci front national résistance ñoom ñëw na sax ci ci marche boobule wante nag euh, naataango yi d'accord nañu ci lii ñi bokk ak euh, PDS di ñi faral Karim Wade daal bu baax a baax manifestation bi ñëw teew la sax li ma gis moom mooy ñi ànd ak Karim ñoom daal dina wane bu baax a baax seeni bopp wante nag ndax ñi ànd ak Karim Wade rek di sonal seen bopp ndax Karim moom moomu nga xam ne moom la ñuy xeexal dina mën a bokk ci wote bi démb ci assemblée nationale député yu opposition bi daal doon si waxtaan ak ministre de la justice bu Sénégal di Ismaïla Madior Fall bokk na si député Europe du euh, Sud di diaspora bi maam Diarra Fam moom li mu wax ministre de la justice moom mooy saa su ne ngeen di xoju di wax ci kanamu caméra ak euh, caméra yeeg micro yi Karim Wade dana ñëw ak du ñëw yéen ndax yéen a moom Ndakaaru pour wax ne Karim dana ñëw am du ñëw parlementaire bi euh, di parlementaire la Diarra Fam loolu la wax Ismaïla Madior Fall ci les échos ku nekkoon étudiante Ismaïla Madior Fall ndax jàngalekat la itam moom Ismaïla Madior Fall ci université euh, ka nekkoon étudiant di Marie Sow Ndiaye li mu wax ministre de la justice moom mooy dafa amee lu ñuy duppee double discours li muy wax ca université bokkul ak li muy wax bu nekkee euh, bu àndee ak président Macky Sall Mame Diarra euh, Marie Sow Ndiaye di reprendre li ñu bëri wax ci opposition bi wax ni ne Ismaïla Madior Fall tali tailleur constitutionnel la maanaam daal di xool ci sart réew mi loo xam ne daal moo arrangé waa nguur gi mu wax ko. kon mu mel ni Ismaïla Madior Fall ab taxawaayam yànqoon na waaye yënguwul daanuwul. loolu la daal loolu la ñu bëri gis en fait. jërëjëf Ousmane euh, ba tey ca diwaanuk euh, Ndar ñu jeexale ko ak euh, lu jëm ci brèche ba ak jamono yi nga xamante ne daal maanaam gis-gis bi tiis na. justement xalifa wante laata ñuy ñëw ci brèche bi ñu des ba tey ci mbir xalifa Khalifa Ababacar Sall ak ak Karim Wade Ismaïla Madior Fall dafa xalaat ne fii ci Sénégal saa yu opposition bi di wax ci wàllu yoon ñoom daal ci ñaari cas rek lañ koy yemale Karim Wade ak ki nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall mu gis ne loolu du dara mbirum Karim Wade ak mbiri Khalifa Babacar Sall ay affaire ordinaire la du dara ndax lu bëri duñ koy gis ci wàllu yoon ci ci wàllu wule Ismaïla Madior Fall wax ni yoon fi ci Sénégal mu ngi def liggéeyam bu baax a baax jëm nag ci ñi nga xam ne dañoo wax ni moom professeur bi ndax euh, vrai professeur la am déet ndax politicien la am déet mu ni moom Ismaïla Madior Fall formé na lu toll ci fanweeri docteur fii ci Afrique wante itam ci biti réew te itam kontaan bu baax a baax ànd ak président de la ndax nag président la boo xam ne dafay dugal ay yeesal yu mag a mag sax loolu moo tax bu nu sukkandikoo ci enquête ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Baldé bëgg fekk ji Macky Sall ci wote bi nu dëgmal ñu amal ab alliance ab lëngoo ndax euh, enquête mu ngi koy wax tey ci ajuma bi mu ngi wax ne euh, njiital union centriste bu Sénégal dina dajale conseil national am fii ci Ndakaaru xool lëngoo boobule mu bëgg amal ak président Macky Sall di candidat Benno Bokk Yaakaar euh, pour 2019 naka la lëngoo boobule di wax wante bu nu sukkandikoo ci enquête moom ci boppam sukkandikoo ci leeral waxtaan yooyu mu am ak président Macky Sall li si gën a am solo ñu ngi ko amal ca France ca ca Paris euh, gannaaw ndaje bi nga xam ne maire yu francophone ñu ngi ko fa doon amal yegg si nag xalifa léegi ci mbiri ndar ak euh, coow li nga xam ne am na wala jëye ji fa am euh, di ay nit yu fa ñàkk seen bakkan ay nappkat ay mool ñu ngi toll ci ñetti nappkat daal di ñàkk seen bakkan ci bël boobu léegi nga xam ne gas nañ ko fa ci atum 2003 enquête di xam ne ni kon ñetti nit ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan lu toll am itam ay euh, nit yu amee ay gaañu gaañu gannaaw ba juróomi gaal këppoo foofu lee ca brèche ba di bël ba tax ba askan wa foofu lee ci ndar lu nuy sàkku ci nguur gi moom mooy ñu mu mu daldi ñëw wut kon ay saafara loolu itam la adjoint au maire bu Ndar Géej Latir Fall di sàkku ci gouvernement bi ndax moom Latir Fall li mu gis moom mooy bun si teelul jóg rek dina indi ay jafe-jafe yu mag a mag gën a yées sax li nga xam ne jot nañ ko fa am ci ci wàllu nit yu ñàkk seen bakkan daaneel rapidement xalifa ba ak wàllu tàggat yaram ak bi lee xëccoo di duel bu war a am diggante Mané ak Koulibaly maanaam Sadio ak Kalidou jëm ci Ligue européenne des champions di duel bi war a am diggante kon Liverpool ak Naples match bu war a am diggante ñaari équipe yooyu la match boobu la nag ñu jàpp date bi xalifa war am fukki fan ak benn ci weeru décembre. jërëjëf Ousmane Gueye ñu fàttali li woon ci boppu xibaar yi ak ñàkkub